dale nag jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyandoo musiba ma kumba gu rëy jamono ji nag mbaadu mooy yot réewum Sénégal yéene kaay gi di réew mi ko di jàmm xëy di ñu xamal naan ñu am na nag beneen kaa maanaam keneen koo xamante ni gis nañ ne am na jàngoroy coronavirus ci réewum Sénégal ca Géejawaay la feeñee yéene kaay groupe promo consulting bi mu ñuy xamal naan ñu encore un français kooke nag a français la yéene kaay gi mu ñuy xamal naan ñu en tout cas li ambade sall mooy jamono ji nag àdduna bi boppam moo daal di nërmeelu ngir nag jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus journal bi nee na lu toll si juróom ñeen fukk ak ñaari junni ci ay nit ñoo xam ne jàngoro jooju dal na leen ci àdduna bi lu toll si ñetti junni yu fegg téeméer ak fanweer rek benn ci ay nit ñàkk nañ ci seen bakkana maanaam coronavirus bi jamono ji daal ralentiwul benn yoona maanaam ma ngay xuus di jàll réewum Chine nag foofee fa la ëppee teg ci Italie Iran ak France journalub groupe Proma Consulting bi mu ñuy xamal nañu jamono ji nag mën nañoo ñoo wax ne jàngoroy coronavirus ji daal daan nay gagné terrain bi jamono ji nag bu doon am match la daal maanaam ñu ne coronavirus nag ma ngi koy waaj a gagné ñoo nga sa prolongation ya ndax nag moom ma ngay xuus di jàll yéen a kaay gi du source a mu ñu xamal ñu beneenu français maanaam nag andi na jàngoroy coronavirus ci réewum Sénégal yéen a kaay gi de la témoin mu ñu xamal ñu nag bonjour les dégâts ñaareelu nag ka coronavirus ci réewum Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ki démb moom nag moo ko daal di xamle observateur kookee nga xam ne nag ab français la te indi fi jàngoroy coronavirus ji kookee nag maanaam ca hôpital Roi Bonnet bu Guédiawaye foofee nag la ñu xamee ne kii daal maanaam li nga xam ne moo ko dal soo moytuwulee nag coronavirus la bi ñu ko càmbaree nag si la ñu xam ne jàngoro joojee la waaye nag li nga xamante ni moo sa reetaanlu ña nga xam ne ñoo nekkoon ca opital Roi Bonnet maanaam di ay malade ñooñe nag biñ leen yéegalee na leen am na ab tubaab boo xamante ni am na jàngoroy coronavirus ci biir hôpital bi ñoom ñëpp rek. maanaam dafa mel ni dara musulee na dala maanaam ñëw jóg rek ab bu njool mi daw daa di génn tiit ba maara day taal yi yéen a kaay gii di laas mu ñu xamal laa ñu nag ñaareelu cas coronavirus léegi nii nag maanaam njàqare rek tiis daan dugg dugg askanu Sénégal maanaam bu ñu waxante dëgg askan wi nag ñoo ngi tiit ba maara day taal yi xel nag ci boppam moo dalatul vox populi mu ñu xamal laa ñu tubaab boobee nag maanaam samedi ji ñu génn la ñëwoon ci réewum Sénégal ay atam nag toll na ci quatre maanaam juróom fukki at yéen a kaay gii di la turbine ñu fekk Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké la mu xam ne nag nee na màggalug poroxaan gi ci boppam dañu ko war a daal di annuler ak nag appelu laayeen yi ba ci daaka ba ci Kazu Rajab ba ci nag ziar général bi yépp maanaam dañu ko nag wara a daal dakkal ngir nag sàmm li nga xam ne moo jëm ci wàllu wér gi yaram doomu aadama ndax nag jàngoro ji di coronavirus maanaam ma ngi lëmbaaje di dema yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lañu nag kaa bu njëkk ba ñu gisoona te kookee dëkkoon almadi maanaam jabaram ak ñaari doomam bi ñu leen testé xool nañ jàngoroy coronavirus Abdoulaye Diouf Sarr moom nag doon na dalal xel yi ci lu jëm ci mbirum koppar maanaam ay moyens financiers ne Sénégal génne na koppar yu bare bari ngir na ñu mën a jàmmarloo ak coronavirus waaye nag ñi nga xamante ni daal ñooy waa OMS waa o OMS ñoom nag nee nañu daal jamono ji amul benn benn xaalis boo xamante ni daal maanaam Sénégal génne gun na ko ngir nag ñu mën a jàmmarloo ak li nga xam ne mooy jàngoroy coronavirus journal bii du l'Observateur mu ñu xamal laan ñu SAMU national ñoom nag jot nañu ay alerte yu bare bëri ci ay nit ñoo xamante ni maanaam dañoo njort ne daal dañoo amee jàngoroy coronavirus journal bi di évidence mu ñu xamal na ñaari cas yépp ay français la maanaam lii nag mooy France ci boppam dafa colonise Sénégal maanaam lu jëm ci wàllum sunu maam yi nga xam ne tubaab yi dañu ko doon jàpp di jaay maanaam lu jëm sunu économie réew mi tubaab yi jël moomale ko seen bopp jàngoroy coronavirus tubaab yi andil ñu ko ci réew mi ana Sénégal moom maanaam ban njariñ la ko France daal di a kaay gi di libération jamono ji moo dox diggante Abdoulaye Sylla njiitul Ecotra ak Momi Kébé doomu Ndiouga Kébé maanaam xeex jëm ci wàllum yoona ndax nag bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Libération Abdoulaye Sylla dafa yóbbu Momi Kébé fa mbaxana doonee benn ndax nag nee na daf ko abaloon lu toll ci deux cent cinquante millions Momi Kébé ne xaalis boobee nag ñuy wax amul Libération yéene kaay mu ñu xamal naa ñu mbir mi nag daan nañ koy yëngal ca tribunal waaye nag dañu ko mujj dàq ba juróom-ñeenti fan ci weeru mars ngir nag daal di ci amal ay vérification Guy Marius Sagna journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu daal nañ koy bàyyi ni ki démb ginnaaw nag collectif ñoo lànk ñoo bañ bi ñu xeexee ba sonn Macky Sall bàyyiwul Guy Marius si la Barthélémy Dias rek daggee ca làng ga wax ne li muy ab chrétien moo tax ñu daal di koy tëj si kaso bi loole nag bàyyi Barthélémy Dias ni Jean Paul Dias ñëw daal di koy dëggal coow li nag daal di bëri riir mi loole nag daal di tax ñu daal di koy bàyyi journal bi di Sud Quotidien ak l'Observateur ak les Échos ak Source A mu xëy di ñu xamal nañu rapport OFNAC 2017 2018 daat nay bari lool lool lool rawatina sa ñi nga xam ne ñooy waa Petro-Tim waa Cosmos ñooñee nag daat nañ jëm baaraamu tuuma ak directrice bu HBEP di Socé Diop Dione journal bi de Les Échos mu ñu xamal ñu Petro-Tim ak Acer Minam distribution Birima Mangara daat nañ ko si tuumaal ay njublang yéen a kaay gi de Le Quotidien mu ñu xamal ñu en tout cas li am mooy cas suspect yi daan nañu koy jox Serigne Bassirou Gueye réew mi mu ñu xamal a a ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay kilifa ci réew mi wax nañ leen ñu def déclaration patrimoine maanaam wax seen alal nu te dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa yéen kaay gi de stade mu ñu xamal ñu coupe de France tey ji nag dina dox diggante Lyon ak Paris germain mu nekk match bu mag boo xamante ñu xamal ñu nag di Rock Énergie ñoom nag li ñu sas Modou Lo daal di nay diis loola la ñu ko sas bokk na ci daal di nag gagné Ama Baldé daan ko ci jël daal werante ba pare nag lijjanti kombaam ak Balla Gaye daal di duma Balla Gaye ba pare toog lu yàgg yàgg comme li Yékini toogoon te amul benn defet